petit train de banlieue dina wéyal ay liggéeyam ki ko xamle di seen njiit lii di Oumar Boun Khattab Sylla ca journée ouverte cleaning day bi ñu doon amal ca gaar bu Tëngéej ginnaaw ñaari weer seen liggéey am ab ndegandiku ndax projet train express régional monsieur silla di ñu xamal ni ay mbir yu yees dina am sax seen liggéey boobu. waaw xam nga àdduna loo gis ay day am moment yu muy dox ak moment yoo xam ne day xaw a taxawal mu wàññeeku. PTB taxawul ay tuuti nëgëndiku rek liko waral moy ay travaux yu am dans le cadre du projet terre. muy projet bo xamné farata la c'est un projet prioritaire petit train de banlieue SA di ci def euh, akulaay taalaam depuis mu commencer pour mu réussir ndax euh, projet président la mais sénégalais aussi ñokoy ñëk njëkk a muy projet bu am njariñ bu ko bu kawé alors ci bir liguey bobu nak day am moment bo xamné du wor euh petit train de banlieue daw train bi di daw euh, loolu motax ñu amone négandiku rek waye bu soobee yalla du yag dara inshallah allah dinañ reprendre suñu circulation continuer di daw di yobu Sénégalais ñi dem ak di ñew ba inshallah train express régional commencé ñuy ñaan projet bobu lepp doon réussite di jàmm di njariñu Sénégal. ba paré projet TER boobu sax ñun ci li ñu tënk ñun euh amna lo xamné dañuy jëlé Sénégalais ci biir réew mi euh, di leen indi chaque jour ah ñuy wacc Diamniadio li ñuy wax rabattement petit train de banlieue ci version bu bees bi mi am. bokul ak leneen li nga xamne walu transport de marchandise la mais nit ñi euh, mën di jóge Kaolack Touba fenen ba bir Dakar ci train te duñu am benn jafe mi ci tiak tiak nek na lu yàgg xew waye jamono ji ñu nek dafa gën am ampleur ñen ci ñom ñu dajel fi ci yarax indi nañ ay leeral ci liggéey bi nu teddé mi ci tiak tiak moy comme ni ñu gisé ni ensemblement ni képp ko am moto da ngay fexe ba mité ko mu nek en norme nga ñew fi gaari sa moto boo gisee koy yóbbu ñun dañuy yóbbu ay dossier fu ne quoi fu ne la ñuy yóbbu ay dossier quoi gars yi nekk ci biir euh, démasseurs yi ñoo ñu jox ay dossier ñu koy yóbbu fu ne ci biir dëkk bi ak ak nit ñi sax nga xamante ne day dem ndax circulation oto yi ndax du ñu mën a dem circulation oto yi dañuy dañuy ñëw jël ci ci moto yi feeñu ñu yóbbu ñu yóbbu ko ndax il faut ñu jàpp ci cag ndax kenn ku nekk xam nga boo xëyee toog sa kër nga gis ko la jëndal moto wala nga am moto sa bopp nga ñëw toog dàq sa wërsëg mu di ñu xamal ni dañ ciy génn bu baax waaye yenn saay dañ ciy jànkonteel ay gàllankoor. mënul ñàkk ndax tali bi xam nga lépp a ngi ci biir tali ci kaw tali bi quoi dañ ciy jànkonteel yu bëri quoi. am na ñoo xamante ni du ñu ay cag-cag surtout moto guddi yi ñu bëri sax ñun sax am na ñoo xamante ci ñun am na ñoo xam ci jun sax dañuy daw guddi waaye du ñu ay ay banditisme comme ñi gars di jàppee di këfee saak affaire yooyu di këfee saak ñun boo gisee ñun cag cak ñun du ñu ànd par deux. du ñu ànd pod 2 boo gisee ñi ànd pod 2 rek ñun cag-cag yi boobu da am ku ñuy yóbbu fu da am fu dem waaye ñun ñu koo gisee moom kese ak motom di yóbbu ay dossier waaye ñu bari boo gisee gars di laxasoo cag bi di këp sag yi yemuñu ñëpp yemuñu da ngay romb oto sax ñu tëj seen verre wala ñuy yëkkati seen biir sécurité ku waaye ñëpp yemuñu quoi waaye am na ñoo xam ne liggéey rek moo leen tax a jog ko métier la métier comme métier yëpp la quoi kenn ku nekk boo ci nekkee daal da nga jub daal moo ci suñu suñu liggéey bi nekk ni liggéey dossier la il faut nga jub respecté liggéey bi góorgóorlu nga xam ne moom loo nekk loolu lu mën doon même boo doon jaay caaf wala tàngal sax boo ko gëmee da nga ci am dara. mu nekk liggéey bu ndaw ñu jël càq-càq métier bu bëri risque la waaye lu mu ci mënti doon liggéey la comme yëpp ba tax. dañu ci japp bu baax teg si dëkk bi amul liggéey ci ñàkkum kaaraange gu métti lañu nekk teg si mënuñu dem mënuñu dikk loolee la askan wi yeewa fii ci Hann Village di dund daanaka ba liggéeyu train express régional bi tàmbalee ba léegi ba tax ñenn ci askan wi di naqarlu li ñuy dund jamono ji suñu problème bari na trop trop trop ndax euh, projet bi def naa ñun la gën a impacté si Ndakaaru déjà euh, ñu dëkk booru euh, si miir bi juste suñu premier mbébét mooy ñu am yoon bu ñu jaar au moins pour génn dëkk bi bon yoon bi ñu jaar nag daa bëri yoo xam ni daa def ci bëri ay gàllankoor mooy fii bu su amee dara lu fi xew ëllëg ñun ñii duñu am fu ñu jaar sax pour génn suñu soxna yi sonn nañ ci dem marché bi amul yoon bu ñu jaar suñu euh, yaay ñoom ñoo gën a sonn ñëpp.

mère duñu génn dem bitik ba xalé yi xalé yu ndaw yi duñu dem bitik ba moo tax dafa metti yow fi bo fi dekkon nekkal ba 20h nga ñëw fi ngay xam mais ñun ñu fi dekk buñ la expliquer mu nga yaakaar na ñun suñu suñu bëgg-bëgg rek lañuy xol mais xamu ñun jeunes yi man garawul man mëna tepp buñ ko terewul bu terrain lay daw sax mëna tepp ciowru jëp du jib mais xale yi jigéen yi dem marché mère yi dem hôpital xalé yi jangi fon risque bi ci nekk mënu ma la ko soxna ci dafa metti sonn nanu tàyyi nanu dee nanu ku sañoon moom man bu ma sañoon jóge fi kese laa bëgg dama amul benn moyen bu ma def pour génn fi mais génn fi kese moom ma gënal fii tey parce que dund bu naqari la ñuy dund amuñu yoon bu nu jaar amuñu benn sécurité mur baa ngi ni ak sunu kër yi zéro ak voltage bi nu wax ne que moom moo war alimentaire alimenter train bi est-ce que wóor na. fu 19 heures jotee 20 heures mooy dangay ngay tëdd man sama doom am na 14 ans léegi danaan ma looy jënd jënd ko balaa 19 heures di jot 20 heures fu jotee du ma génn te tamit wax na dëgg fii nii fi lan koy jaayantee fi lan koy tuxantee sàcc yi comme li ma la expliquer woon sàcc bëccëg sax dañuy sàcc tëb dem seen yoon waxuma laa guddi guddi moom dun ñun bokkuñu guddi ñun bokkuñu guddi 18 heures dañuy dugg suñu biir kër 20 heures dañuy nelawi baa nga tëj sa bunt ba mu dëgër jàkkaarloog télé bi jëmale 7 heures. bi ñuy teg fii mur bi dañoo ne woon dañuy xàllal yoon yoon bi ñu waxoon ne lañuy ñuy xàllal dañoo ne li ñu war a jëli bokkul ci kër yi yoon la donc man à chaque fois sama wax yëpp dama naan apix la parce que bu ñu defoon seen liggéey nu mu waree. du ñun ñoy taxaw di kaas. ginnaaw loolee nak ñoo ngi woo nguuru Sénégal ak képp ku ngang ci liggéey bi ngir ñu indi ci ay saafara. docteur Habib jaar na fi le maire jaar na fi le euh, le colonel en personne jaar na fi mais vraiment tout ce qu'ils ont dit ba léegi defuñu si dara ñun nag euh, il faut que ñu am yoon bu ñu jaar loolu mooy suñu premier objectif defar ñu yoon bi parce que ils avaient prévu ça prévu dans dans le projet mais ba léegi ils n'ont pas fait léegi loolu nag vraiment ñun euh, riverains de Gaal gi.

Nam sax mairie bu an Bel-Air yebaloon na fa ay ndawam waye mbir mi amul njeexital ndax ba legi sen jangoro munul faju xarum ladum nek xar bu and ak jamono te tegu ci temps askan wi bëgg ko lool muy race bu am qualité qualité bi nga xamni éleveur sénégalais ñoko ñoo sen bop bo xol boo yi bu fi exposer yëpp ay laadum lañu différence bi moy ligne yi waaw ki tay ji doomu sambalaw be la yaay doomu Teranga la sambalaw be doomu Touare rek la Touare rek may sara yaayam doomu Teranga la ak Mixa Mixa doomu Ferdinand la tey li ñu fi exposé mooy booy xool diggante Saalum Saalum ak way sara yar laa du na ku loo wax méttiwul day wax lu ko neex métti na torop torop torop torop waaw parce que tey booy booy xool tey am na si ñoo xamante ni tey jamono ji entreprise la tey mu nga dugg ci kër xool première deuxième lépp ay xar lay doon suñu leen lii ay ñaari nit ñetti nit ñoo koy gérer nga ne non non chaque deux nga bëgg a sang nettoyer toppatoo xar jël say vaccin defal len loolu ku la wax yomb na mom tamit day wax lu ko neex rek ne yombul lo deug fa yalla yombul. après dañ investir nak ci euh dama ci investir tamit euh, gis na ni bu am nga ci xam-xam xam nga fi ngay tek sa euh nekul nekul nekul investissement buy échec investissement la bo xam ni mën na euh, la amal ndariñ bu féké utum xaliss la pour ñenn si éleveur yi ñeneen yi ñom di def ngir bëgg-bëgg. laadum passion moo ci duggal dugal parce que sam ben grand. bi naan as joxaane moom dugal ci élevage daanaka ba ma nekk ci élevage ba léegi daanaka man ak moom la daanaka dugguñu si daal pour xaalis parce que da avant amuñu woon ay laadum booy xool avant amuñu ay laadum xëy rek xëy ni la ko yàlla tuddee woon tamit ak bëgg-bëgg. lépp loo gis rek bëgg-bëgg bi moo jiitu xam nga ndax nit ki loo bëggul rek pour man sonnoo ci rek doo ci jariñu quoi ndax loo bëgg gëm ko xam ni liikat kat ci nga jariñu moom. trop tard gëm naa ni da nga siy jariñu ah, tey am na loo xamante ni boo ko bëggee rek amaana euh, lu si mënti am rek yow da nga koy mën a maintenir xam nga euh, lu mu metti metti metti rek yow doo gis metti mettit bi carrément ndax passion bi ñu ciy am la moo tax ñu naan euh, bu fekkee da dugg ci lenn ak lu mu mënti demee na nga ci demee par passion boo demee par passion rek amaana euh, leneen bu si ñëwee rek yow doo si découragé ndogal ba daanu na ca chambre criminelle du tribunal de grande instance bu ndakaaru àttekat bile daal na tëj Samba Seku saw ngir dundam ak amande bu toll ci 350 millions ci suñu koppar ginnaaw bi ñu dëggalee ni moo faat kii di Fatoumata Makhtar Ndiaye. ab laaj daal di samp rek ci ndax jotul andi wat pen de mort. fele ci diwanu Kaolack ay defkatu ñaawteef yoroon ay ngànnaay ñoo duggoon si benn kër si guddi talaata jàpp àllarba bi wees fekk fa ñaari taalibe yu imam Assane Cissé ñuy wuyoo si turu abd Aziz Cissé ak doomam Bassirou Cissé ñoom ñaar ñëpp nag nekk ay doomu Amérique ginnaaw cong yooyu nag ñetti million si suñu koppar ñi di defkatu ñaawteef yi yóbbaale nañu ko boole si ay ngaañ yu métti métti ñaari américain yooyu. ba ñu mujjee ci hôpital Ibrahima ñas bu Kaolack waaye kii di Bassirou Cissé dafa mujjee ñàkk bakkanam mu nekk lu askan wi yépp mettitlu te di ko ñaawlu tàggat yaram ak tirage première phase éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 gaynde yu Sénégal yi war ci laale Congo Namibie ak Togo ci group H bi ginnaaw bi ñu amalee bile tirage talaata bi ñu génn fële ca Égypte senegal yu bëri jàpp ne guney Aliou Cissé yi mën nañoo génn ci bile poule pool bi ñuy xalaat kañ mooy pool D bi regroupé ñaari ténor yi di Côte d'Ivoire ak Cameroun journée bu njëkk bi dinañ ko jongante juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan ak benn ci weeru octobre atum 2020